إن الذين إلى سردار خير قصدوا سيارة الفارخ دائرين أو شارع أمدي وزغري لمن كل بيسا لو ردن دون سوق عند سرسارا لو صنع واريد وعن البلا سقات مسقاد لي من بني ديمان أنسارا لله كل للادا أبار ما كرمات منارت لنا وفي أجم من سارا إن الذين إليه سردار خير قسادوا سيارة الفارخو دائرين أو شارا إن الذين إليه سردر قد قصدوا سيارة فارقوا دارين أو سارة naar yaa nga di tawaay Kajoor a sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa Gànnaar def mbokk kon noonu ngeen gis rek mbooloo mi di yéeg ci kaw bag bi ñu ngi fii nag ci Rosso Sénégal bag bi agsi nañu war a yéeg ci kaw fas yéene jéggi nag dem Rosso Mauritanie nii nag lañ ko daan ànd ak soxna maam Issa Mbacke njiitul fédération en lu kafe ci teewaay bu rafet lool waaye wuute ju teew mooy soxna maam Issa tey ji yàlla dogal na nekku fi waaye dafa mel ne mi ngi ci biir mbooloo mi ndax pas-pas ak pas-seef bi mbooloo mi daan ànd ak soxna maam Issa Mbacke njiitul fédération en lu café dara ko ci boo demee ci wàllu journalisme mboolem site internet yi mboolem télévision yi daan ànd ak moom ñëw nañu ànd ak ñoom ci liggéey bi waaye mbooloo mi nga xam ne itam ñoo doon ànd ak moom ci njiitu soxna Ndeye mbakke soxna Ndeye Sey Mbacke sëñ Modou karaa ak mboolem mbokk yi ñu àndal ñoom ñëpp teew nañu ak soxna Maam Jaara Mbacke gis nga noonu bokki taali bii di yëg waaye ànd ko ak nag mbégte mu takkoo takku dégg nga ñu ngi yëkkati kalimatu laa ilaha illallah ngir di dugg ci kaw bag bi di fas yéene jéggi mbokk yi kon lii mooy étape bi xam ne ñu ngi toll ci euh, Rosso Sénégal fas yéene dëgmal nag jéggi dem Rosso Mauritanie foofe nag bu ñu fa àggee fa la ñu nekk defee seen i formalité yëpp ba ñu noppee nag daal di mën a wéy siyaaratil faaraxu daarayni aw saara inna alladi bu ñam rek alaaji Ayib Lo mu ñu bëggoon xam rek bi ngay yéegee ci ko bag bi ngir fas yéene dëgg mal dem Sar Saara ban yëg-yëg nga waaw xanaa santaat yàlla julli si yenente bi waaye sant Serigne Touba xam ne tey neex na waaye dimbu metti woon na jamono yu Serigne bi jaar fii di dem foofa di fa def lam fay def wute ah, wuute na ak tey ji nga xam ne ay oto la ñuy dugg biis climatisé yoon wi neex lool ak bu nu ci mën a jànkoonteet ñu xalaat suñu waaj waje rek xam ne buñ toppee ay tànkam ah duñ ca gis lu lu loo xam ne daf nuy rusloo waaye duñ ca gisit loo xam ne day yàq sunu pas-pas waaye lañ cay gis lépp mooy loo xam ne daf nuy jëmalewaat kanam tey it bala ngaa xam sëriñ bi dëgg nga génn ba topp mbooram fu mu tegoon tànkam nga teg fa sa tànk mhm. da nga fa gis loo xamante ne nii mhm. yow mi nga xamante da ngaa toog Sénégal ba tey dese ngaa xam sëriñ bi waaye ku ñëw Sarsara a gis la lam fa def mhm. dem Gabon dem Mayomba dem Limberweri dem Libreville jaar fi mu jaar fépp da nga xam ne suñu waaja rek mooy waaja kon yàlla na ko yàlla fayal sëriñ bi Mbàkke gannaaw bu ñu la nuyoo siyaar la dañ lay bàyyi nga nuyoo bokki taalibe yi jamono ji nag agsi nañu Rosso Sénégal war a jéggi dem Rosso Mauritanie xëy na tey soxna maam Issa Mbacke mel na ne ku wóote jotaay bi waaye mel na ne ku teew ban yëg-yëg nga am par rapport ak bu ñu daan ànd ak moom waaw sant yàlla bu baax rek nga xam ne murid rek la mu ah, ngi fi ndax mboolem lu ñu daan def ci yoon wi ak luñ teraanga bi fi daan am rek gis nañ ko fi taxawaay bi ñu daan taxawit bi soxna si nekk daa mel ne tey mi ngi fi ndax soxna fi ay tànk ma ngi fi ay bët ma fi kon jógu fi ndax lii ñuy wax lépp mi ngi koy dégg ndax ah, liggéey bu nangu mooy tàmbali dara ba yàlla nattu la benn at nga wuute ko loolu yàlla dogal muy continuer mu mel ne yaa nga fa kon dañuy sant yàlla di ko ñaan li mu nekk yàlla génne ko ci bañ àndaat ko ci bis àndaat ko ci alhamdulilah eh, ñu àndaat ko ci bisimilah te lépp luñ fa am na ñu bokk ak moom ndax lii bu ñu fi ñemee wala ñu mën faa dem rek jëmmam la moo ñu moo ñu fa woo moo ñu fa ndi moo ñu fa teete ba ñemee faa dem ak suñu bopp kon yàlla ñu ko yàlla fayal am ñu yaakaaroon ne bu wuutee ay jafe-jafe yu leen jaaxal déedéet baax na wuuteem gi sax dafa mel ni dafa jàjj nit ñi ndax nit ku nekk da ngaa jóge jul jom ak fulla ak fayda ba mel ni mi ngi ci jataay bi dañoo fab jëmmam teg ko ci jataay bi ba dara manqué wut wuute wut ni mi ngi ci biir jataay bi nit ñi moom macha allah sant leen gërëm ñu ngi seen seen taxawaay yàlla leen yàlla fay لو صنع يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من ديمان أنصاره لله كل للدا أبر ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرزر خير خسدوا siyaaratil faaraxu daarayni aw saara inna alladina ila sardara xaat xasadu siyaaratil faaraxu daarayni aw saara naar yaa nga waay. ci topp ci seen ziar Sarsara édition 2023 mbokk yi am na nañu mbégte ànd ak yéen ci trajet bi nga xam ne nii depuis Dakar Touba waaye escale fi nga xam ne moom mooy Louga mbokk yi nag ñu ngi fii ci Rosso Mauritanie délégation yi jóge Touba ak Dakar yëpp jéggi na frontière bi jéggi na jël na bac ba jéggi ñëw fi nga xam ne moom mooy Rosso Mauritanie war a àggale nag seen i formalité dem jàll Nouakchott ci convoi yi nag. ñu ngi fi ak sunu ci jëwrin soxna maam faamaloo jiitee convoi bi jógee dakaar ñoom nag ñu départ fi depuis démb ci takkusaan fas yéene ànd ak mbokki taalibe yi dajeek ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge Touba muy ONG ak fédération Ahlu Café ci njiital soxna maam Issa Mbacke mbokk yi xam ngeen ne trajet bi dana métti du métti loolu yëpp nag waaye Pastef bi ci taalibe yi wane seen ak yàkkamtee àgg ci bërëb bu sell boobu noonu gis ngeen ne donc bus yi nga xam ne ñoom ñoo war a jégg yëpp jéggi nañ sama gannaaw noonu gis nga bac bi di àggale li nga xam ne moom moo jot ñoom ñoo jotoon yéeg ci bac bi pour mën a wàcc maa ngi nag taxaw ak ak ki ma la koy invité mu ñëw rek soxna maam Famaloo daal di ñëw nag ñu waxtaan euh, ñu nett li ñu tuuti ci li nga xam ne moom mooy seen trajet depuis dakaar démb ci ngoon daanaka ci waxtu wi ngeen fa jógee soxna si ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu lay fay bu baax euh, di sant yàlla. ba mu ñu mayee ñu taxawaat fii tey ci Rosso Sénégal Rosso Mauritanie waaw euh, Sarsara at mu jot ñu koy ànd ak soxna Maï sa mbakke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ndax lépp moom la moo nu yóbbu Sarsara moo nu xamal Sarsara ba mënatuñoo toog bu waxtu yu jotee mënatuñoo toog te ànd ñoog moom woo mbokk taalibe ñu ànd ak soxna Maï Samaka dem Sarsara démb la ñu jóge Dakar Tubarkàlla def nañ une forte mobilisation woon nañu waa axlu ko fa yëpp ñu ñëw toog ànd ak ñoom ñun ñu woo waa waa Jeysun kuréelu Jeysun bi Jeysun bu Masalikul Jinaan les 313 am nañ ci 12 yoo xam ni ñëw nañu ànd ak ñun war a yoru njàngum alxuraan mi njàngum xasida yi ñu départ dakaar bi ni ñëwee wàcc nañu Louga kër Alaaji Papa Kodelo bi nga xam ne moo fa nekkal sëriñ bi fa la fanaan bi nu xëyee ñëw nañ ci croisement bi dajeek waa Touba ñëw ñu ànd ak ñoom jéggi ñu ngi fii tey ci Rosso Mauritanie. alors euh, soxna si euh, nekk fi ren waaye ci message yu ñu jot a yónnee nee na ren jii moo ko dàqal sax édition yi nga xam ne euh, moom la daal ñëw di ci ànd ak yéen loolu ban yëg-yëg nga ci am yow. yëg-yëg bi ma ci njëkk am mooy kaar bi ngeen gis dalinkoon bi ma luyee ji kaar bi 1 million 600 la waaye kama dem di ko luyee ji ndekk taalibeb Sëriñ Saaliwu la yokkoon na ko waaye bi ma nekk dañuy liggéeyal Sëñ Tuubaa dafa aalu ni ma man li ma am Sëñ Saaliwu ma ko kon fay leen la ngeen fayoon daaw ndax essence bi dafa yokk waaye tegg naa lépp bu ma duggee bureau fekk naa fa photo Sëriñ Saaliwu ak photo ma ne kon ren affaire bi dina neex bi ñu duggee ci oto bay ñëw mbégte bi ñu àndal xamuñu ndax soxna si dafa ma woo ni ma ren lay daax ndax moom lu mu wax sëñ Tuubaa fekku ci ndax maam sa sëñ bi da ko liggéeyloo dafa am gërëmul sëriñ Tuubaa moo tax lu mu dogu ni lii nangam dafay am tawarkàlla Mbàkke mënu ma ren lay daax kaar bi ambiance la ba ñu yëg si ñii woy sëñ Fallu ñii di fecc ñii di kii lu nekk ndi na ci ba ñu yëg si fii tey te xam naa bu ñu yeggee fee day gën a neex waaw day gën a neex ndax nit ñi boo xoolee nit ñi sax nga xam ni ñëpp dañoo bég ñëpp dañoo kontaan ànd ak cawarte maam Issa ngi ci biir de maam Issa ngi ànd ak ñun ci biir waaw moom moom xëy na jëmm ji la ñu gisul waaye mi ngi ànd ak ñun ci esprit mi ngi ànd ak ñun ci lépp. kon donc turam la reine du désert moom toujours day rester éternel. ça reste éternel parce que moo njëkk teg tànkam. euh, dans le désert de de, de Sarsara c'est la première dame moo njëkk a teg tànkam dans le désert de Sarsara kooku kenn mënu ko wecce kenn kooku kenn parrainé wu ko kenn marrainé wu ko mais c'est la reine du désert waaw moo initié lépp. alors euh, yaa ngi génne léegi bureau formalité yi foofu euh, naka la demee yomboon yombal nañ leen ko ren. waaw commission bi ñëw na tabarkàlla gisee nañoo gaa yi ba nga xam ni fay bi xaw na woyof tuuti. xaw na woyof euh, Moulay Aïdara mi ngi mi ngi daw rek bureau bu ne mi ngi fay dugg mi ngi woo commandant yi mi ngi woo yëpp ñoom xam nañ ñu ren bi ñu ñëwee formalité dafa gaaw ndax li ñu daan laaj carte d'identité yi di xool nit ñi di yéeg mais yooyu defuñu ko dañu leen jox liste ñu dóor ci cachet leen dem la ñi waa Sarsara lañu ñu jéggi fay nañu ba pare léegi dañuy xewlu bu ñu xewlu rek ba pare il a non incha allah dem dallu dem dallu ji ba suba ñu nekkaat ci yeneen liggéey <laughs> jërëjëf mbokk yi soxna maam Famaloo jiite convoi bi nga xam ne donc moom mooy jógee fële ca Dakar maa ngi seen nag Abdoulaye Dieye waaye nag bëggoon naa gis ci waa Dieye sun Euh, ñoom nag kenn ci ñoom euh, bu ko defee tamit ñu wax ñu seen présence exactement ci euh, kuréel gi ci ren jii nga xam ne donc moom nga ko noonu nga ko annoncé ñu fas yéene ànd ak yéen fukk nit ak ñaar ci ñoom ñëw gunge leen ci yoon bi dafa mel ne tamit ñoom am na liggéey bu ñu doon liggéey ci laata bés bi di ñëw tamit. waaw xam nga dafa am sëñ Siri ñëwoon na Dakar woote fa benn assemblée générale ànd ak kuréelu Jeysun bi. mu ne woon bu sañoon tey Jason bi day wàcc day wàcc Sarsara te muy lu mën a nekk sax parce que Jason Sëñ Tuubaa ko am keneen amul Jason Jason bi dem na boo leen fekkee message ko ñoom dinañ dem ba doon 1000 dem ba doon 2000 eh, barabu Sëriñ Tuubaa événement boo xam ne Sëriñ bee ko moom Jason dafa war a wàcc donc moo tax ñoom ñu jël une moitié ni foog ñu teew tey daaw sax ñëwoon nañu daaw ñëwoon noonu mais ren dañoo xaw a dañoo yokkaat nombre bi. jërëjëf waaw soxna maam Fama Lo kon nag moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite convoi bu Dakar euh, comme nag ni ñu ko waxee ni ko annoncé woon sànq maa ngi eh, tak ànd ak euh, ba koy ma koy invité ci euh, fi nga xam ne moom la ñu nekk gannaaw bi ñu defee formalité yi Abdoulaye Dieye jiite nag convoi bi nga xam ne moom moo jugee Touba waaye di coordonné maanaam ñaari convoi yëpp ci dakaar ak ci Touba. Euh, ñoom ñëpp waaye tamit dafa am sax leneen lu ci yokk moom mooy yeneen convoi yi nga xam ne dañuy ñëw tase fi ñoom ñëpp dafa mel ne benn say la ñu def ren ngir mën a defandoo seen i formalité génn génn ànd def benn convoi jubali Nouakchott loolu euh, dafa mel ne yem na Cheikh Abdoulaye waaw di maa ngi lay ziar baax di nuyu bokki taalibe yi ñu àndal yëpp di nuyu itam mboolem daayira yi nga xam ne ñoom lañ fi dajee muy daayira Radatou Anil Mawla euh, ñoom itam ñuy ñu am pasteef wax dëgg yàlla dégg naa léegi itam soxna Ayda dem ñëw na comme ni nga ko waxee rek noonu la demee dafa mel ni tey convoi yi fi daje yëpp wax dëgg yàlla eh, dañoo àndandoo nekk benn bokk ndey bokk baay xam ne ñoo bokk lu ñu yëkkati muy sàkku ngërëmal sëñ Touba bi ñu ñëwee itam wax dëgg yàlla daje fi ak eh, suñu bokk yi jóge Nouakchott muy Abdou Assis Diop ak eh, Serigne moodu Diop ak sëñ mulaay ñoom itam wax dëgg yàlla ñu def ay effort am na sax yu ñu daan fay yoo xamante ni bii tey fayuñu ko. loolu di yokkute bu baax a baax a baax beneen bi ci dolleeku tam mooy àndandoo bi nekk benn ndax lu yàlla moo ñu ko digal waa tasimu bi abdillahi jameen wala tafarxoo euh, na ngeen jàpp ci bu mu yàlla gi te bu leen teqali ko waxtam ne julli ñi ay mbokk lañ euh, dañoo war a yéwénal mbokk gi loolu nag def nañ ko ba tax na ñun li ñu waroon a fay euh, ci bac ak li ñu waroon a fay ci assurance ak li ñu waroon a fay ci yeneen yu sesaan yëpp fay nañ ko léegi dara desul lu may commissaire bi caché dossier yi rek ñu dem loolu kese moo des Eh, nee na tam su fekkee lépp yemb na rek incha allah mu kase dossier yi ñu dem kon yaakaar naa ay minutes yu néew danañ war a mën a génn ànd ak eh, commission bi incha allah wutin waa na yàlla suñu borom même bonne sortie bi nga xam ne ci yoon bi lañ ko daan fay pour bañ nit ñi di tardé ci yoon bi ak yu demee noonu incha allah kon daal loolu mooy particularité bi ren moom mooy yoon bi dana yemb dana gaaw kon incha allah rabbi ñu fas yéene jub ak den wax waaw loolu loolu nag lañ yaakaar loolu nag lañ yaakaar ndaxte mel na itam bi ñu fii laata ñëw Euh, fekk nañ autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tam joxe nañ digal ndax Sarsara léegi nekkatul lu ump kenn saa woo ñëwee fii ba dugg ci cour bi rek euh, da gis naa ne sax ñoom ci seen bopp dañuy daw di sonn di la lijjantil yenn yi nga xamante ne bi mën nañ ko wax dëgg yàlla kilifa goo xam ne tam euh, am na lu tàkk bañ woo ko tam suñ ko wooyee rek wax dëgg yàlla ak jàppandi la ciy def léegi nii rek bi nu jokkoo ak ki nekk ci bag bi ndax bu 6 heures jotee dañuy yokk ci bag bi Eh, lu tolloo 4000 ouguiya waaye léegi bi ñu ko wooyee nee na 4000 ouguiya nañ ko bàyyi nañ fay rek li daan fay kon nag ñi kilifa yëpp jàpp nañ ci daal ñu ngi sant état wu Mauritanie di sant état wu Sénégal di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala li ñu ci amee ñu mën ko bokk ñun ñëpp ci barki Sëriñ Tuuba xasadu siyaaratil faaraxu daarayni aw saara mbokk yi xam ngeen ne màggal Sarsara dafay gën di yaatu ci Sénégal gépp du du délégation yu jógee Touba wala Dakar rek mais ba Casamance am na ci ay taalibe yoo xam ne dañu dégg appel bi rek comme ni ñu ko defee woon lancé woon pour woo ñëpp ñu ñëw barkeelu ci ba tax na sunu mbokk muy jógee ba Casamance moom tamit ci ñëw fas yéene ànd ak ñun ren ci màggalu Sarsara sëñ bi euh, bismillah tur bi la. sama tur mooy Aliou Aliou Djiba. Aliou Djiba mooy sa première euh, màggal Sarsara. oui sa tànk bi mooy c'est première pois ma dem ziare Sarsara. waaye sabab yi yëpp soxna Fama Lo dama xamante ak moom Dakar mu ne ma moom dafa bokk ay dajale kuréel yoo xam ne day dem si magal euh, ziar Sarsara ma ne ko bu soobee yàlla bu soobee yàlla ak yéen Serigne ren dama am yéene ma dem tami ma xam fan mooy euh, Sarsara mm. ma gis foofu kéemaan Serigne Touba loolu war sama tànk mm-hmm. waaw alors bi nga ko déggee kon sawar nga yàkkamti woon nga dajeeg mbooloo mi nii ambiance bi. bégg na kontaan na sawar na lool parce que musuma dem Sarsara loolu donc lu ma gis mbooloo yi rek sant na yàlla sant na Serigne Touba waaw. alors déwén nooy woowee sa mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Casamance tamit. bu soobee yàlla maa ngi def ñoomu ñëpp ay message bu soobee yàlla. déwén du nekk man kese la allah allahu suñu daayira bi dina am de délégation yoo xam ne dañu bokk si soxna Fama Lo ñu dem ziyaare Sarsara. est-ce que doo leen ko lakk ñu dégg ko. ah njoome mani kontaanie di télévision yanga raña ah. wuli koke manu tiplo fala fati Mauritanie wuli koktate manu jogenore pour be jay be ziyaare ti Sarsara mo kana ñom de saf di daayira yolola burum anu sana je be jamu ñom de saf kati Casamance burum jomde e safkati région era ziguinchor département ti bignona ɓuurom an ah, sérin touba ino ña ome nan pori lon tate ni leya pana yeme si bisa sosman si gare si wote sosman si gare e jomde saf télévision o wiye assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu nuyu wa télévision bi ak liggéey bi barki sérin touba alhamdulillah mbokk yi euh, ma fas yéene ànd ak rek waa kuréel Jeysun euh, ak sëñ Makhtar Dieng moo leen jiite noonu euh, nag ci xam naa rek ci tënk rek sëñ Makhtar Dieng yaag sa mbokk taalibe yooyu bismillah euh, bu ko defee nag euh, yéen tamit seen teewaay lu am solo la ci bés bi ñuy àndandoo rek teewlu leen ci li nga xam ne ñoom la ñuy euh, dégloo ak ni la leen dalale kon ñu ànd ak ñoom ñoom ñu waa kuréel suñ kon seen teewaay ànd ak soxna maam Fatou jugee ba dakaaru ñu bàyyi leen rek ñu yëkkati tuuti rek ci béyit boobu noonu nga xam ne moom mooy hamdi wa shukri hamdi wa shukri

mbokk yi ñu ànd ak rek xam naa ne sëriñ Mokhtar Dieng euh, liggéey bi euh, door ngeen ko laata ngeen di départ Dakar démb ci waajtaay màggal ak Sarsara bi nga xam ne moom la ñuy nekk fii ci Rosso fas yéene jëm jubali Nouakchott alxamis ñu fanaani fa ca bërëb bu sell boobu. bisimilah barke bi asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ziare sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général murid nga xam ne liggéey bi ci ndigalam lañ ko teg di ziare sëriñ moom. loo mi nga xam ne mooy jëriñu Masalik nga xam ne mooy imam bi ak sëñ Xaadim Lo ak sëñ Bakkiyu Fay mi nga xam ne mooy jëriñu liggéey bi kon nii rek lañ ko nosee woon bi ñuy jógee Ndakaaru démb daanaka ci waxtu bi dañ jógee Ndakaaru sëñ Basiru Lo ak sëñ Xaadim ñaanal ñu ñu jóge fa ñu fa jógee nag benn étape rek lañ def mooy Louga lañ ñëw fa lañu fanaan kër sëñ euh, Kilo fa lañu fanaan nga xam ne mooy représentant wu yoonu murit Ndakaaru Pape fa lañu fanaan démb bu defal ñu nekk ndax kuréel jësin bi moom niñ ko xamee mooy soxna Fama Lo mi nga xam ne moo fi nekkal soxna Maay si Ndakaaru moom soxnaam la kon fa la ñu fanaan bi ñu fa fanaan bi ñu xëyee nag la nekk Louga cortège bi ñu ànd ñëw fi nga xam ne daanaka ay 17 heures la ñu ci bac bi léegi nag lañ jàll war a dem nag Sarsara li ñuy sëñ Sidi nag sëñ Sidi mu sëñ moom la ñu moo ñu ci woo ndax ku ne xam ne ñetti at yëpp dañuy woo jëysin bi pour ñu dem def ay prestation bu ñu demee nag suñu programme mooy dañuy dem Serigne Sidi waxtu bi bu ñu eggee euh, noo dem mu ñaanal ñu tàmbali liggéey bi am na étape ñuy def foofu nag daanaka le deux yaakaar naa am na ci étape bi ñu fay def le premier nag yaakaar naa mooy màggal Sarsara loolu nag ñun guddi àjjuma bi kuréel jëy suñu ngay seen nii bu ñu demee foofu dañuy fanaan jàng ba peut être bi ñu xëyee gudd guddi àjjuma bi ñu def guddi àjjuma bi dem daal mu dem Matamulana ndax sëriñ bi ren dafa bëgg kuréel jëy suñu bi dem Matamulana kon noonu mooy suñu programme incha allah samedi nag ñu dem ci salle de conférence daal di ñibbi si programme bi daal noonu lañu ko doxee ñu ngi bu baax di bu baax ci ci communication bi ga xam ne chaque année nii lañu koy doxee yéen ngeen ci jàmbaar lool ga xam ne daaw bu ma jógee fii dem Ndakaaru sëñ Bakk yu fay ci boobu moo ne lépp mi ñu ko doon teewul lépp direct ngeen ko defal kon dañ leen amal njukkal gu rëy waa presse bi di leen di sant bu baax jërë ngeen jëf. mbokk yi kon xam ngeen rek euh, noonu leen di toppalee Euh, li nga xam ne moom mooy euh, ziar bi waaye tamit ci formalité yi dégg ngeen soxna maam Famaloo Cheikh Abdoulaye Dieye li nga xam ne moom la ñu war a def yëpp ci bureau yi def nañ ko waaye fekk si nañ fi commission bi nga xam ne ñoom ñoo jugee Nouakchott gàttandu leen kon mbokk yi duñu def lenn nag lu dul ànd ak yéen ba biir Nouakchott ca kanamu Serigne Sidi Mbacke Mourtada mu dalal taalibe yi bu ko defee liggéey bi daal di wóyandi ci yeneen euh, anam ak ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf. لوردا دون سوء إن سرسارا لو سنا يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنساره لله كل لداه أبار ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرزر خير قسدوا سيارة الفا إن الذين إلى سردار خير قساد سيارة الفارخ دائرين أو شارا